waaw xam nga mois octobre dañ ci ko japp ci aduna bi ak ci ñi nga xam ne ñooy yëngu ci mbiru numérique comme weer bi nga xam moy mooy cyber sécurité moy ñu koy wax cyber octobre moy ci weer bi nga xam ne dañ ko japp ci aduna bi lepp li activité de sensibilisation activité de euh, de cybersécurité moy wax nit ñi nan lañ mëna a euh, pour ci mbiru internet ñu mën ko mën ci liggéey mën ci évoluer

ci côté gouvernement bi pour jàppale ñu ci sensibilisation té xam nañu ne ndaw ñi tay ñom ñoo représenter 90% ci ñi nga xam ne ñoo nek ci internet bi. kon ndaw ñoñu tay suñu amé conscience ci risque yi nga xam ni am ci dérive ci réseaux sociaux yi mais également liñ ciy wax ay affaire haine di ci menacer nit ñi di ci chantage ñu mobiliser wu ci côté gouvernement bi pour jàppale ñu donc sensibiliser seen morom ndaw ñi lool dañ koy rafetlu kon jeune yoy dañ leen di féliciter encourager leen wax leen également gouvernement bi dina nek seen wet pour jàppale leen ci activités yi ñu bëgg def pour accompagner donc stratégie Sénégal euh, de numérique bi ñu am mais également stratégie nationale de cybersécurité Moi SNC 2022, deux nga xam ni dañ ko war évaluer xol également li nga xam ni moo ci gëna a ñu renforcer ko ak yi ñu ci war joyanti donc légui mu jot lool lepp tay ñu àndandoo ko def ben tànk def ben équipe pour renforcer liguey bobu tay lool lañ doon mais vraiment profiter féliciter ndaw qui ci prise de conscience mais également remercier nos partenaires au développement yi nga tous ñu ngi pour que nous ci biir Sénégal mën utiliser internet qui jàmm utiliser ci dal mais également li nga xam mo taxoon a internet pour que nit ñi di ci mëna liggéey di ci mëna def commerce di ci mëna a waxtaan di ci mëna xamanté di ci mëna développer ay solidarité mais également ay connaissance di ci def business di ci liggéey loolu mu mëna gëna ñong a loolu mu gëna taxaw loolu ñu gën ko renforcer mais pas cyberespace bo xamni

donc ba tax na kon lolu sensibilisation war nañ ko def luñ ko ci def doyul ba tax na kon ndaw ñi suñu mobiliser suñu côté lolu dañ koy rafetlu diko ko sant suñu borom. waaw ah, plainte yi jot au niveau de la CDC même au ci tribunaux yi bari na moy surtout li nga xamni mo jëm ci euh, mën naa ni wuññi suñ turu nit ki wala waxal ko defal ko wane ki yëm boo xam ni defu ko wala utiliser euh, nu mu tudd euh, image am def bëgg ci def arnaque wala def ci lu bëri loolu bëri na ci donc euh, ba tax na aussi il faut que même euh, kuréel gi nga xam ne moo koy saytu au niveau de la gendarmerie au niveau national ñu daal koy def kuréel bu am compétence nationale la mais nañ ko def ba nga xam ni peut région bu ne dina am benn boo xam ni mooy représente kuréel googu mu bañ a nekk rek plainte boo xam ne dañ naan la demal ba Dakar ndax loolu aussi suñ ko defee dina tax mu jege population yi dina tax population yi am kuréel gu ñuy waxta waxal directement mu mun mu décentraliser wu au niveau des 14 régions au moins dans un premier temps mais euh, euh, compétence nationale bi au niveau de la gendarmerie mais aussi nous ko élargir les police egg ci euh, il faut se féliciter suñu partenaires yi comme ONUDC li ñuy def former les magistrats de renforcer capacité nous Nous ñu am gens yu ñu instruire les plaintes yu jëm il faut nous am une expertise bi ñu am formation pour instruire yu mel Nous, ba nga li nga euh, am ay sénégalais yu ci victimes victime ñu protéger nous leen également Les défendre plaintes qui reviennent le plus souvent sont liées euh, plus souvent à l'usurpation d'identité, mais également à la diffusion d'images et d'audio euh, malveillants, donc, euh, qui sont des données à caractère personnel et qui sont aujourd'hui de plus en plus répandues. Il faudrait que nous puissions travailler à renforcer la sensibilisation, mais également à capaciter les Sénégalais et les autorités judiciaires pour qu'elles puissent prendre en charge de manière optimale donc, ces questions. Donc aujourd'hui, nous, avons, nous savons que nous avons une brigade au niveau de la gendarmerie nationale, euh, au niveau de Koloban, qui a une compétence nationale d'instruction de, ces plaintes. Mais il faudrait qu'on essaie de voir comment avoir en fait une décentralisation au niveau régional au moins pour qu'on puisse avoir au moins des brigades de recherche, une compétence ou bien en fait un bureau chargé donc de recevoir les, citoyens, de les écouter, d'instruire leurs plaintes dans un premier temps avant peut-être de transmettre au procureur ou bien au niveau national. C'est pourquoi je pense qu'il faudrait qu'on ait une organisation beaucoup plus étendue sur l'ensemble du territoire. Donc un bureau régional même, peut-être à la limite, avant de, descendre au niveau départemental. Et cela nécessite une réflexion, mais aussi une, capacitation. Il faut accompagner davantage donc, les magistrats, davantage donc, les forces de sécurité et de défense pour pouvoir instruire de manière optimale donc, ces, plaintes, mais également accompagner aussi les populations dans la sensibilisation. C'est une question assez complexe qu'il faut naturellement approfondir, mais avec l'ensemble des acteurs, nous, nous pourrons donc il y arriver.